ak kaa na alxaaris ibnu hammaam xaala mu ne ajmaatu dogu xoon naa ina qadaytu ba ma jooxee manasikal xajji jaamu yàlla xaj ba nga mboolem jaamu yàlla aju ci wàllu xaj jooxe naa ko ci la dogu wa aqamtu ma taxawal wazaif al ajji liggéey yaa moom wax la béyka la ajju mooy nga yëkkati sa kàddu di wax la béyka wa sajje ak loj gëlëm ya wala rëy xat yu ya dama waxee la béyka def li ma war def ci aj yëpp ba loj ci laa dogg nag lu dogg an aqsida ma jublu Tayba te Tayba moo di dëkk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maa rufqatin ànd ak ay min bani Shayba yu bokk ci banu Shayba li azura pour ma ziyaare xabra nabi rawda yonentu ba al Mustafa bañ tànn rawda mooy fañ ko denc waaxruju ma génn من قبيل من حج تيمبولم نهج مكه وجفات بيتينغال يونتي على محمد صلى الله عليه وسلم نانا مونغي جونيو حديث بي واخني من حج ولم يزورني فقد جفاني كو حج مكه تزياي ون ما بيتينغال ما مانا فالي ون ما ون ما غناو دا خيب نمرا دغ دغ بون تيامتون بن روايه ان نو مانا توليس dem ba jege yonent bi ziyaare woo ko daal rafetul daal dem ba jege yonent bi te jaaroo man daal nanguwuma ko daal te ñemewuma ko it su ko defee moo tax mu ne moom ba mu ajee ba pare dafa bëgg a génn dem ziyaare yonent bi ndax mu bokk ci ñu ko becc nga fa or jëfa ñu siiwal bi anna al masalik na yoon ya shaaxiratun lu raglu la wala shaaxiratun aji ñàkk sécurité la shaaxira mooy foo xam ni kuy dal sa kaw kenn du ko aaye amul leen lu ko mën a aar mooy yoon wu ñàkk sécurité ndax ku ne song te kenn du ci wax dara ñàkk sécurité foofu la wa arab al xarama yi arabi ñaari mutashajiratun way xuloo lañ fa xirtuma gëlëm benn ishfaaqin ci diggante ragal yu sabitu nii bu may gàllankoor di ma toogloo wa ashwaaqin ak nammeel yu nashitu nii goog dana ma sawarloo léegi ragal gi ne toogal léegi-léegi namm yonente yàlla muhammad sallallahu ilaa an ulqiya fi rawi ci sama xol al istislaamu jébbalu al istislaamu jébbalu wa taxlibu ziyaarati qabrihi ak notal ziyaare raw doom ba ali yàlla nekk si moom asalaamu jàmm ba mu ne naa wakkilu ci yàlla rek dem ziyaare ji kul ma ci fekk baax na faatamtu ma daal di tànn alqoodata gërëm wa adattu ma préparé alondota xaduwaaye mooy lépp luñ ñu war a préparé préparé naa ko mm-hmm. wa surtout ma dox wa rufqata ànd ak àndandoor ya mm-hmm. laa nal wii duñ jeng mm-hmm. ala horjatin ci benn jàdduwaay maanaam duñ jéem sax fenn wala na nii duñ nànku fii tawibin ci dox bëccëg gi wala dul jadu caageen dox guddi guddeeg bëccëg daal ñu dox duñ doye de xataa waa naa bañ dikkal bani xarbin kuréel gu ñuy wax bani xarb waxat aabu te fekk jugee min xarbin ci guerre fa azmaanaa ñu dogu an nuqaddiya ñu jeexal zillal yow mi nga guddaay ak bis ba zillal mooy bis bi yëpp ni wax saxaabatu nahaari mooy bëccëg gi rek hmm. parce que bis fekk mu ngi fay des hmm. ker gaa ngi des euh, guddi hmm. su ker gi demee bis bi day jeex hmm. bu ñu waxee zillal yawmi mooy bis ba yëpp ma ne doogu ne nañ jeexal bis bi yëpp fii xillatil qawmi ci gàddug nit ña mooy seen kër ya ba bay na maa nax na ba nga xamee ne ñun na ta xeeru ñu ngi tànn al munaax yeesuwaay mooy wàccuwaay wanaru du ñuy sàkku alwirda naanuwaay an nuqaaxa gaa ji dog mar ba nga xamee ne ñu bëgg a wàcc ci benn xar bu boobu di xool fan lañu war a wàcc di sàkku it barab boo xam ne buñ mare dañu fa naanee istisansar ay naawam gis nañ leen yar ku duuna yar ku duuna ñu ngay gaaw kàndoom dafa mel ni ñoom yu fi doona way gaaw lañ ilaa nusubin jëm ci ay xërëm yuñ samp faray naa ñu gis intiyaalahum seen ak dégg nga nocceeku wala seen ak gaaw rek wasaal naa ñu laaj ma baaluhum la leen jot dégg faqiila ñu ne xad xadara teew na naa di yowum seen garam place bi faqiwul arab yi ki nga xam ne moo gën a dégg fiq ci arab yi fa iraahum seen ak gaaw li hada sababi ngir lii la hmm. lii moo tax ñuy gaaw hmm. fa qultu mu wax li rufqati ñeel sama àndoor ala nashadu ma nax duñ fekkee hmm. majmaal xay yi dajee waaye gàdd gi dina te bayyana ngir ñu birlu rushdan njub minal xay yi ci njumte ma nax duñ dem xool li xew ci jotaay boobu ngir ñu jëlee fa xam-xam xàmmee lu baax ak lu baaxul ndax boo teewee ci faqi moom daa la waxal lay njub ak lay njumte fa qaalu sama àndoor ne ma la a asmaata déggloo nga is daawta ba nga xootee mhm. maanaam nangul nañ la la mhm. wana saxta laaya biir nga wama mhm. njub la su ma naxat naa topp ñu wóor na temoo ñu ngi topp alhaadi aji tegtal ja wana umm ñu ngi jublu annaadiya penc ma Mm, ba dem nag topp xëy na dafa am ku leen jiitu ñu topp ko mm-hmm. mu leen woon yoon wi mm-hmm. jëm nag fa gaa yi daje xataa mm-hmm. ida afdal naa bañ jegee xale yi ci moom wastasraf naa ñu kéenu mooy yëkkati na suñu bëri pour xool alfaqi aji dégg fiq ja almanhuuda kadakañ buur daal bi ak baat bi benn la rek kër gañ buur ilayhi jëm ci moom bañ ko xoolee alfaytuhu fekk naa ko aba zeydin mu di aba zeyd waaw ñooy laa xool gis naa ne abu zeyd la da suqari kay borom ak nar ya wala buqari ak i caaxaan suqar ak buqar benn la buqar dañ koy it baasi suqar boo waxee suqar dañ siit ak buqar mooy fenkat rek wala fa waa xëy kay borom ak jombale ya wal fiqari kay borom mag sajo ya hmm. sajo mooy baar yu bokk daane hmm. ki nga xam ni ku bëri ay mbir yu jombale la bëri ay man ay sajo hmm. gis naa ne abu zér daal moo nekk foofu waqad tammata fekk kaaloona alfaqda langal ga faqda xeetu kaala la mooy kaala goo xam ne dangay langal dara ci côté ndopp càmmo yi wastamala làmboona asama làmboy gu nee na mooy làmbaay goo xam danga ko muur yaram wi amul benn fenn fooy génnee sa loxo amul dara dégg nga mm-hmm. mm, dégg nga mm. Mm, ñu ne it xam ne benn yëre rek la benn wàll gi da nga ko yëkkati teg ko sa mbagg ba loolu mooy asama dafa am wuute waqaada mu toog al qurfu saa ferenkulaay ba ferenkulaay moom xam nañ ko yaakaar na wa ayaanul xay yi ga maxtafuuna mm-hmm. way wër lañ mm-hmm. bi ci moom te maanaam sangu waax yaanul xay yi sangu gàdd ga mm-hmm. maanaam kilifaay gàdd ga gàdd mooy quartier ah yaan mooy kilifa yooyu ñu ci gën a foor maxtafuuna way wër lañ bi ci moom dégg nga wa atlaatuhum seeni njaxas multafuuna way wër lañ ale ci moom ومم يقول ما يوانا سلوني لاجلن عن المعضلات في مسألة يتيا واستودي هو تغن ساكو ليرلو مني في من المشكلات يلنتي أو ديرين من مسألة مجفر لاجلن مكو لولنت رك لاجلن مكو <laughs> ليه يوم بروح مو فوالذي ما ينجزك يا خمني فترة بلنا أسماء أسمان وعلم مقام آدم آدم الأسماء تريب إني نمان لفقه العربي ماي أجد ديك فقه عربي العربة ويلير عرب عربي بير من ما سن فقه بماي كيري ماي كتي جن ديك فقه وعلم ما أبقم كم من تحت الجربة يكون كتيرون أسمان كيف يكون كتيرون أسمان سرق ما كبقم كم بما خلول نك kon samp na boppam te nag boo sampee sa bopp rek war nga ko lay alquran bi naan qul hatu burhanakum in kuntum sariqin moom loolu lay wax moom bo fu waxe dara dal yàlla daf hatu burhanakum rek in kuntum sariqin andi len sen lay bu fekkee wax ngeen deug so ande sa lay nak nit ñi nangul la boo andi sa lay nak pour fonto nit ñi fa sama da mu jublu la woñeel ko fatan wax waxambaane fatiqul lisaani fi aji dégg nga ñëw làmmeñ jariyul janaani ka aji dëgër xol maanaam ku jàmbaar xol benn waxambaane ñëw boo xam ne làmmeñ wu ñëw la yore bu hmm. fasa hmm. yore xol bu ñeme nag ragalu dara hmm. wa qaala mu ne ko indi nag man xaadartu teewe naa fuqaha dunya borom xam-xam yi fiq ci àddina bi yëpp man dajeeg naa koy borom xam ba ma tànn minum mm. ci ñoom wala mm. ba xatan taxaltu mm. ba ma tànn an taxaltu minum ci ñoom mi ata furiya téeméeri ubbe téeméeri masala yoo xam ne ñoom leeral nañ ko man ma jàpp ko fen kunta boo nekkee mi man di bokk si ñi xam ne yar xabu danañ xemewoon banaati xayrin ci doomi nar banaati xayrin mooy koo xam ne dafay wax lu dëgg rek waxtaani daal way raxabu muy xemam minaas ñun fii may dañ ci dund hmm. boo bañee nar bëgg nga ñu yox la dara hmm. fas tamit déglul li ma lay laaj waajib ta tontu hmm. li tuqaabala ngir ñu jàkkaarloog yow bi maa yi jib ci la war <laughs> lii da ko ndaw li wax de waaye eh, ba ko ndaw li waxee li it fekk na fa mag mu xam abu zeyri du waxantu rek ceex yi ceex la yoo xam ni yéeme la waaye tontu na yëpp alhamdulilah فقال أذن الله أكبر يا لجمع قرس يبين قرسنا لير المخبر لن نبون وينكشف دنونيك المدمر لن لن مورون ياري باري بين أبو زيدنا الله أكبر تانا نغن خم لين أمبياب دنا فين فازدع قتل بما تؤمر تلين لديغن أنا وقال تكو ما يفضل بما تؤمر قل جهارا xaal ndaw li ne ko maa taqul lay wax fi man tawaddaa ci ku jàpp mhm. su ma lamasa topp mu laal zahra naarihi gannaaw ak dàllam ya mhm. xam nga laaj yi boo koy xool danaan laaj day fekk ndaw li li muy laajee mooy day baat boo xam ni mhm. dafa amee ñaari firi firi mu jege ak firi mu sori fekk moom ba firi mu sori la ci nam Abuzeer yi noonu la koy tonte Abuzeer xam na waa ne day ceex mm-hmm. mu tontee ko noonu looy wax ku jàpp laal gannaaw daalam xaaral mu ne ko intaqa intaqada yàqu na du woo njàppam bi <laughs> nga waroon man dama naan ah, mm-hmm. fekk an naalu mooy azawjatu soxna mm-hmm. an soxna lay firi dana firi daal dana firi soxna mm-hmm. abu zeyr xam na ne soxna la ko waaj waaj bëgg a laaj mm-hmm. mu ne ko <coughs> fa in bu jàppoo summa at ka ahoo mu sukkandikuloo ko maanaam mu tëral ko albardu sedd bu jàppee ba pare sedd bi tax mu sukkandiku nii nag mm-hmm. abu zeyr na ko xaala abu zeyr na yu jadidu dana beesal albardu moo di an naw mu nelaw ku jàpp nelaw dafay jàppaat moom na ci fiqu Shaafi lay tontu masal yu bëri nag moom Maalik yi ñoo ko bokkale léegi mu wute xaala hmm. mu ne ayam saw ndax dana masa al mutawaddiu aji jàpp unsee ñaari way yooram yi ñaari way yoor yi mooy ñaari yoore ci ron awra bi hmm. kenn du ko masa xaala hmm. abu zér nag xannoo di sopp nañ ilay jëm ci loolu wala mu yu jëp war luñ ko alay ci moom mu ne ko waaw loolu de luñ sopp la waaye warut al unsiyaani nag al uznaani mooy ñaari nopp yi hmm. day firi ñaari way yooyu firi ñaari nopp yi hmm. abu zeyr xam na waaye ñaari nopp yi la bëgg wax eh, mais ci maalik nag sunna la shaafi ni sopp la xaala hmm. mu ne ay juus ndax dana dagan al wudu njàpp mi maa ci nga xam ne yàq di foofu dana ko puufu dana ko génnee ci gémmiñam ason baanu jaanu ñàngoor lii jaanu ñàngoor puufu man ndax mën nañ see jàpp xaala abu zayd ne ko waxal an zafa ndax am na lu gën a set minu ci loolu lil urbaani ñeel arab yi ndax mm-hmm. arab am lu gën a set loolu mm-hmm. fekk ak sama baan jamoo saabun woowu moom masirul waadi mooy yoolu xur wi yi yi ndox ndox yi jaar ci xur yi mm-hmm. loolu mooy génne ko ndax mën nañ see jàpp mu loolu dara gënu koo set eh, yow nag boo ko déggee mën nga yaakaar ne jaani ñàngoor la xaala mu ne ko ay stabaahu ndax danañ daganal maa ut dariiri ndoxam gumba mm-hmm. xale mu ne ko naa waaw waaw wóoy tëna bu danañ teet maa ut basiir ndoxam aji gis mm-hmm. ndax mën ngaa fekk gumba bu am ndox rek nga nangu ndox ma jàppoo ko mu ne ko waaw dara nekku si waaye nag kuy gis moom bul nangu ndoxam mm-hmm. fekk ad dariiru xarful waadi mooy cat xur wi wal basiiru nag mooy alkal bu xaj hmm? <coughs> la ci xaala mu ne ay xillu ndax dana dagan ak tatawufu wër kaaba ga fir rabi ci lolli xaala mu ne yukuroo danañ sib daaliku loolu leen xadas yi ngir jëf ji ak chanie gu ñaaw ci wër ci loolli kay dara nekkut ci mu ne waaye sib nañu ko ndax dafa ñaaw fekk ak tatawufu mooy ak taxawutu dem duus war rabi moom lool nag foofu an naxu saxiir mooy dex bu ndaw dem ci dex bu ndaw dafa dem duus ba yàggee nga yàq ko xaala mu ne ay jibu ndax dana war alxuslu sangu mhm. alaa man am naa ci ku génn mën yu xaala mhm. abu zér ne ko laa déedéet wala san naa déedéet ñaareel na ko fekk am naa mooy nazara minan wàcc na minan mhm. <laughs> ku wàcc minan sang waru ko mm, mm, ci wax ne naa ak am naa ak imtana mooy wàcc na minan rek xaala <clears throat> ne faal yajibu ndax dana war al junubi ci ko yore janaaba xasdu mhm. farwatihi raxas cëw daam ba cëw da yére la mhm. ku yore janaaba nu muy raxase yérem mhm. xaala abu zeyn ko ajar waaw waaw woo xasdu ibrati war naa raxas pusaam ba sax yore janaaba lu ci raxas yére amee ak pusa fekk al farwatu mooy jildatu raasi deru bopp ba ku yore janaaba du ko war a raxas wala ibratu nag xasmul mirfiqi mooy yaxu conc ba kooku ku ku yore janaaba war na ko raxas xaaral mm-hmm. <coughs> mu ne ko ay jibu ndax dana war a ci moom raxasu saxiifati raxas téeréem ba ku yore janaaba noonu ko naam waaw ka raxas li shafati yi raxas tuñ wa rek fekk as saxiifatu mooy asiratul wajhi ras rasu kanam gi mm-hmm. kanam gu ras mm-hmm. la ras ci kanam gi mooy saxiifatu da ko raxas mu ne ko parce que tuñ benn la قال من فين أخذ بقتي بغزل فأسه تراخ سمن ينبا سنقول تراخ السمن ديام قال أبو زينك هو ممكن ما لو ألغى مغمين بنين لون غزل غزل رأسي رغز بوبا <coughs> بوباي رغز سمن موكو باي رغز بوب نيوم فك العظم الفأس سمن في فيرو سمن مي في العظم يخ al mushrifu ba sapp maanaam ba yëkkati ko daa noqalatee xafaa ci xóot-xóotu ndonga yax boobu nekk ci kaw mhm. moom mooy si moom mooy alfoosu su ko bàyyee sang mi dafay yàqu mhm. ndax moo ko bàyyi raxas bopp bi ñëwee mhm. xaala ne ay yuusu ndax dana dagan al xuslu sangu dégg fil jiraa bi ci mbuus waaye mu ne xoow moom kër xus sangu fil jibaa bi ci mbalka mhm. ndax mën ngaa sangu ci mbuus mhm. mbuus xam nga kenn dugg ci mbuus di fa sangu hmm. mu ne ko moog sangu si mbalka benn la fekk aljiraabu mooy jaw ful biiri biit teen xaala mu ne fu maa taqul lay wax fii man tey mu macc ku jàpp hmm. su ma raatoo fu mu gis raw dan toolu dër jàpp ba pare gis tool toolu toolu toolu tool bu am ay fleur hmm. xaaral mu ne batala yàqu na teemu tiimam fële te fa daana jàppaat fi man teemoo kon dafa tiim gis toolu dër mu ne ko tiim gi yàqu na jàppaat hmm. fekk a rawdu haahuna fii jamu rawdatun waye a subaabatu moo di xont hmm. tabqaa dana des fi xaw ci mbalka mooy rawdu hmm. bu gis ko moo ko tiim am ndox ñoo jàpp tiim gi dafa yàqu <coughs> ay juus ndax dana dagan anis juram sujjóot a rajulu góor fi na adarati ci ay cabinet dem duus mhm. xaaral ne naa am waa walu jaanib na teet alxadirata tilim ndax nit mën naa sujjóot ci ay cabinet mu ne ko waaw waaye nag bu mu sujjóot fu tilim luy loolu fekk aladiratu fi naaw daari muy ëtti kër ba mën na sujjóot waaye nag moytu nag fa am tilim aladiratu mhm. fi fii cabinet fi naaw daari la ci ne mu ëtti kër mhm. قال من فهل لو نحن لك أسجود سجود على الخلاف في غرب الخلاف غرب الخلاف بنا كي سوف نحن نغزي سجود غرب لو يخم نسيان بانقاس دي يور بيجم سوف نور دينا لولا يوينكو أبو زيغ قال نكو لا دير ولا على أحد الأطرافي بشاكن بين سجد چت یریم بوبی fekk alxilaafu mooy alkumm loxo mbub bëgguñ ko fi sujjóot xaala mu ne fen sajada hmm. fen sajada nam sujjóot naa laa simaale si càmmooyam hmm. xam nga sujjóot si sa càmmooy mooy jublootoo xibla xaala boo seen ko laa baasa ayut bi fen bi fen si jëfam hmm. dégg chimal mooy jëmu cham la moo di ab làmbaay rek mu lal ko sujjóot ci xaala mu ne faal yi juus ndax dana a sujjóotu sujjóot alal kuraan yi ci yeel xaala mu ne naam waaw duna ziraan yi waris yeel ak xasabu leen wutale fekk al kuraan wu mastataala mooy la gudd na min al xarrati donga ja waaye moom donga ardun suuf la zaatu xijaaratin yu am ay xeer suudan yu ñuul bu mm-hmm. demee fekk ab donga mu sujjóot fa dara nekku ci mm-hmm. yow nag da nga yaakaar ne yéen lay wax mm-hmm. dégg nga xaala mun ay yusalli ci boppu xaj xaala mu ne ko naam waaw mën na faa julli ka saayir xaj bi comme doji mbappaari rasul kalb bi saniyatun mbedd la maarufatun buñ xam ndax mën naa julli ci mbedd rasul kalb la ci namu xaala ay yuus ndax daa dagan li daari si ñeel aji jàng yenu ay kaamil xaala mu ne ko laadire wala xamduhaa du caageen mu yenu ko mm. fil malaaxi fi ci milaf yi mhm. ndax kuy jàng mën naa yenu kaamil mënu ko ko yenu mënu ko yenu ci milaf yi fekk mën mënu ko yenu dara ci def ko ci dara mhm. fekk addaari su mooy alxaayidu ajaami mbërëg xaala mu ne maa taqul lay wax fi man salla si ku julli waa ana tuuta naqam ba mhm. baarisatu aji feeñ la julli gi dafay yàqu xaala mu ne julleem jaayisatun dagan fekk al aanatu al jamaatu mooy mbooloo min xumril wax si si nagu ci njaaxal la hmm. mbaam mbaam xal la booy julli si mbooloo mbaa njaa mbaam xal yi feeñ dara nekku ci xaala hmm. mu ne ko feeñ sallaa nam julli na waale war na ko soomun koor xaala hmm. mu ne yoxeelu day baamu walaw sallaa jële julli na mi at yawmin téeméeri bis julli fekk yaa ngi yore boru koor mu ne baamu fekk asamu mooy zaraqu naami cabinet yi Banjul yi maanaam la bëgg wax qaala fayn xamala ndam yoon na jirwan doomi xaj wa sallaatam julli qaala mu ne huwa moom kamaalaw xamala comme bu yenoon baaqillaa sabab baaqillaa dégg kuy julli xenul doomu xaj nag nee na sobe ci ñoom ñu ngir maari lépp luy dina lu laab la mu ne moo keenu sabab sab bu ñuy wax baaxil daa ñooyam fekk al jirwu al sixaaru mooy ndaw yi minal xisaa yi ci lawteef warumaan ak gerenaat meññet yooyu di law ak gerenaat yi ci ndaw yooyu mooy jirwu loolu laab na xaala mu ne attasiw ndax dana weer salaatu xaamilul xarwa dégg jullik ku yenu xooxaan xamoo xooxaan koo xamee xooxaan mooy koo xam ne suuf gi dafa yëkkatiku mu ne ndax koo xamee xooxaan mën naa ji mën naa julli xaal mu ne laa déedéet wala sa laa déedéet julli na fooqal fooqal marwa ca kaw marwa fekk alxarwatu fii fiirul xooxaan mooy miilaxatul kël bi xabukaayu xaj fii xaj di xabee di fa naane maanaam sobe daal xaal mu ne fen xatara nem toq na ala sababin musalli si yére aji jullit yi naj wu nu sobe naj wu mooy lay génn ci biir ga ci biir doomu adama bi dégg nga xaaral mu ne yem di day way fi salaati si julleem wala xar wa kim taan nekkul fi fekk a najwu a saxaabu mooy niir alladi bi nga xam ne xat xaraqa sew na maa wu ndoxam nii woo xam ne ndox mu tuuti ndox mu sew am di ko tuur loolu mooy a najwu mu ay juus ndax dana dagan an ya umma Mm-hmm. mu jiite arijaalu góor ñi mu xannahun ku musóor maanaam jigéen mm-hmm. ndax jigéen mën naa jiite góor mm-hmm. xaala mu ne naam waaw waye umum dana leen jiite it mu dar mu darrawun aju sol mbaxanaam koŋ wala mu dara laabisul déere ku sol mbuwoom koŋ daf na déedéet góor rek moo leen mën a jiite xaala ne fen am moom dam jiite na man ka nga xam ne fii di nekk na si loxoom waqf Mm-hmm. waqf mooy lu ñu joxe te yàlla tax mm-hmm. moom moo ko yore waqf gi daal di jiite xaala mm-hmm. mu ne yoon yi doon dinañ baamu wala andoom dina ñoom alfun junne lañ al waqf nag mooy astiwaaru lam meneen aaj bu jugee ci mm, bañi ñey aw zabli wala bunaat loolu moo di waqf bu jugee ci deru bunaat wala eh, bañu ñey firuut loolu nga joxe te yàlla tax lam boobu lay firi wa araada lam bëgg an noo ne li am ba am laay jos du dagan dara jaal ñeel góor ñi ale itimaamu roy bi ni saa si jigéen lam boobu jigéen ñaa ko doon sol moo tax mu ne góor mun roy ci jigéen xaale mu ne fenn am moom nam jiitu ne la man ka nga xam ne faxduhu luppam ba baa di jëtun aji feeñ la xaale mu ne salaatoo julleem wa salaatum ak seen julli maa di jëtun aji wéy la koo xam ne lu baa ngi feeñ bu leen jiitee hmm. mun a ñoom ñëpp julli gi baax na léegi hmm. alfaxdu nag alashiratu mooy giir wa baadiyatun mooy yeskuloon dañ dëkk albadwa ci àll ba waxtaaran tànn na baadu ahli luxati ñenn ci ñooñ luxa hmm. taskinul xaayi sukkoon xaaga min hadil faxd ci biir lupp dafa ci biir faxd li yaxsul ngir mu am farq al farqu teqale baynaha diggante moo bayna abdoubi diggante cër bi bee ñuy wax faxis bi ñuy wax mooy géer xaala mu ne am moom nam jiit na leen asawru yëkk al ajamu bu ñàkk béjjën yëkk bu amul béjjën ni mu jiite xaala abou zeyd na ko salli jullil waxalaaka te jéggi na la zamul ŋàññi jullil yow amoo problème fekk asawru mooy asaydu yëkk sang wala ajamu mooy allazi bi nga xam ne laarum xadira xeej maawa de ko ngandaay daal xaala mun ay duxul ay ndax dana dugg dégg nga alxasru wàññi ci mhm. salaati shahidi si jullig aji seede ji mhm. koo xam ne dafay joxe seede mhm. ndax mën naa wàññi xaala mu ko laa déedéet wala xaay bi maa ngi ci aji faddu ji shahidi ki aji teew gi fekk salaatu shahid mooy jullig aji teew mooy salaatul maghrib jullig timis firiwu jullig aji seede summa tuddee nañ ko bizaalika si julli aji teew uh-huh. li iqaamatiha ngir taxawal gi ñu koy taxawal ànd mm-hmm. ak tuloon nañ mi sa fenk ak biddiw ba jamono bi biddiw yi fenk lañ koy kii dañ mm-hmm. koy door a julli li ànd naj ma ndax biddiw yi sama dañ koy tuddee achaahid ñeene déedéet dañ koy tuddee julli aji teew ji ndax kenn du ko wàññi dañ koy matal rek comme teew xaala mu ne ay juus ndax daa dagan lil maazuri ñeel ko am gant an yuftira mu dagg fi chehr ramadana ci weeru koor xaala mu ne maaru xisa yombaluñ fii ci moom illaa li sibyaani lu mooy xale yi fekk al maazur mooy al maxtuunu kañ xaraf woowu mu aydan al muazzar mooy kuñ xaraf rek xaala mu ne faal lil muharrisi ndax ñeel na aji tërtërroo ji an yaakula mu lekk fii ci weeru koor kuy wàcc ci fajar daal mm-hmm. kuy tukki ba fajar jot mu wàcc ci benn barab mu noppalu ndax mën naa lekk xaala mm. mu ne ko naam déedéet maa ngi jum mu arrisi ndax ñeen na aji céetale an mu lekk fii ci moom muy fiir mu jege mi kuy seetu ndax mën naa lekk ci weeru koor mu ne ko naam waaw bi mel fii ci fees ak gémmiñam mm. fekk al mu arris al musaafir mu aji tukki allazi ki nga xam ne tur dana wàcc fi axir laylatin ci mujj guddi gi avant fajar nag lestarea pour mu noppalu suma yer taxil topp mu laxas kuy tërtërloo mooy kuy tukki noppalu ci mujj guddi gi kooku mën naa lekk bu fajar jotagul xaala mu ne fen aftara nam dagg na fii ci weeru koor al oraatu way rafle ya ñu amul yére yuñ sol buñ lekkee nag xaala mu ne laa tunkiru du weddi alayhim si ñoom al wulaatu kilifa ya fekk al uraatu alladina mooy ñi nga xam ne taaxuduum dana mu jàpp leen al urawaawu euh, lox ga hmm. waaye moom al xummaa mooy tàngatu yaram bi reexdatin ànd ak lox koo xam ne dafa amee tàngooru yaram ak ak lox hmm. al uraatu jëmu mm, mooy mooy ñooñu noonu hmm. su ko defee ñooñu dañoo feebar mën nañoo dog xaaral mu ne feen akk la nem lekk na asaayi mu aji ji بعدما أسباقنا بمقية قال من هو الأحوة موغن هور له نيركو أسلحة موغن باخ فك أسباق ما استسباق لير لنا بالنسبة جي لامب بفك من نور بمي دوك دفا طالب فاي دور لك نعم من يقول الموغن هور قال من فين عمد نمجبنا لأن أكرم لك ليلة تقدي كور بطايا لك قدي قال من يشمرنا وغو lil xadaa ngir fay zayran mbicc hmm. na wag mbiccam pour fay maanaam na préparé pour fay hmm. fekk laylu firiwul guddi zakara tudd na ibnu duraydi ibnu duraydi am layla na layla hmm. farqul xubaara mooy cuuju piccam xubaara wa qaala wax na xeyroo ku dul moom wala dul karawaan mooy doomu naat ñu ne doomu naat la ñu ne piccam xubaara cuuj ba bu ko loolu ko xool bu ko lekkee dafay xaaral mu ne fen akal nam lekk na xam anta tawaaraa njëkk muy nëbbatu hmm. al bay daaw jigéen ji weex ja xaaral mu ne dana ko war wallaahi yelzamu dana ko war wallaahi maa ngi gën ci yàlla hmm. alqadaaw fay hmm. fekk al bay daaw min asmaay shams mu bokk ci turu jant yi al bay daaw day firi bu lekkee te jant bi muuroogut xaaral mu ne fen istasaare nam looju na mu aji xoor ji nam génn na asaayi mu aji xoor ji alkayda an pexe ku xoor bu defee pexe luy atteem xaal mu ne aftara dog na wa man axalla maa ngi génn ci ki nga xam ne daganal na asayda rëbb fekk alkaydu alqayu mooy wëcc ah, wastasaarahu mooy istidaamu sàkk na ko xoo hmm. moo ko moo ko kirée daal xaala hmm. mu ne ko allahu ndax ñeel na ko an iftara mu dagg hmm. biir xaayi taabiqi ci xuuxleeg aji togg ja mhm. xuuxleeg mooy mu taqoog yow rek mhm. mu kuy togg ne lekkal mhm. ndax mën ngaa lekk bu sàkkoo si yow nga lekk xaala mu ne laam naam waaw laa bi taahil ma taabiq waaye waxuma kuy togg ñam ya nag dégg nga a taabiq fii alxumma mooy sibru asaali bi gi aji sax sibru boo xam ne dafa sax ci waaji rek tar lool <coughs> loolu mooy taabix moo tax mu ne ko wax mën ak toggi ñam nag xaala mu ne daxikat nem reena al maraat jigéen fi saw mi haa ci xooram jigéen ju xoor ba pare daal di ree xaala mu ne ba tale yàqu na dégg nga saw mu yow mi haa xoorog bisam fekk daxikat firiwut reena xaaw naa fii li firi dégg mooy xaadat ay xaadat mbërëg na mm-hmm. wa minu bokk na si qawluhu taala wax yàlla fa daxikat mu mbërëg wa mm-hmm. bashar naa ñu bégal ko bi saqa si saqa xaala mm-hmm. mu ne feeñ saxalam al judd al juddari yu dégg nga feebaram juddari ci goroom feebar la boo xam ni dafay mel ay picc yu xonq mën a gaaw walaati lool xaala tuftiru dafay dog in azara na mbég na bi ma daratiha ci lorom ala deret ci wujjam lay firi hmm. sa wujj ba amee feebar ju dër yi ndax mën ngaa dog hmm. mu ne ko waaw bu fekkee lor na ko fekk a daratu aslul ibham yi mooy cosaanu baaraamu ndey hmm. wa aslu sadi wenn boobu ci baaraama mi wala ci weena mi bu ko naree lor mën naa dog xaala mu ne maa ngi jibu lan moo war fi mi ati mis bàyyin ci téeméeri làmp xaala mu ne xeqataane ñaari xeq ba amee téeméeri làmp mooy na nga génne ñaari xeq téeméeri làmp moom lu ñu ci génne asaka làmp dara làmp dara waru ci dégg nga mhm. mu ne ko génnee ñaari xiyaasaa yow sama fekk al misbaahu làmp an naaqatu mooy gëlëm allati ba nga xam ne tus biwu dafay xëy fi mabrak ci góor waay ba fu mhm. wax na ko ne génn xiqa mooy gëlëm mooy gëlëm gu dugg ci atam ñeenteel xaaral ne ko fenn malaka ne moom na mhm. mu xanaa fukki paaka xaaral mhm. mu ne yoxu ju day génn saateeni ñaari gàtt wala saajiru te du alxanaajir mooy ay gëlëm alxisaaru dar yu bëri soo wa waaxidatuha benn bi mooy xanjar wala xunjuur benn gërëm mhm. bu dee benn paaka moom xinjar kon ku am fukki gërëm day génn benn ñaari gàtt xaala mu ne fen sama xanem tabe na li saa yi ñeel ajaram mbaaje bi xamimat yi ca soppeem ba mhm. ñëw fekk ku rambaaje da koy wax sa mbiru sopp yëpp pour mu rambaaje ko xaala mhm. ne yaa bushra xoolaa mbégte la woon ak yomal qiyaamati bis pencam kooku de rambaaj googu mu def noonu dana ci am tiyaaba mm-hmm. fekk asaa yi mooy jaabi sadaqa di koy jël sadaqa mm-hmm. wal xamimatu nag xiyaarul maali mooy tànneefu alal ja boo jëlee sa tànneefu alal nga jox ko koy jël asaka ja mm-hmm. ah loolu mbégte la pour yow yomal xiyaamati xaaral mu ne aystaxiqu ndax dana yelloo xamalatul awzaari ñeexenu ay bakkaar mina zakaar ci azaka jusaan ab xaaj xaaral ne naam waaw ida kaanoo buñ nekkee xusan way xeex ñaaxeenu bàkkaar ndax am war nañ leen jox asaka mu ne waaw buñ xeexee al awzaar nag fii mu assilaaxu ngàndaay wa xusan jëmu xaasin ñaaxeenu ngàndaay pour xare ji mhm. mu ne waaw bu dee yenn ngàndaay rek moom duñ leen jox waaye buñ xeexee dañ leen jox loolu la ci nam xaaral mu ne ay juus ndax dana dagan mhm. li xaaj ji ñeel ko xaj mhm. an yaxtamira mu omra ko xaj ndax mën naa omra xaaral mu ne laa déedéet wala an yaxtamira lu caageen mu muuru الاعتمار لبس العمارة ميسل كالا ويجمو العمارة مو الإمامة كالا والاختمار لبس الخمار ميسل موسى موراك واندفو أنكو أجي ورسل كالا كالا قال من فعل لو نحن ينلك أن يقتل مري الشجاع جان ينقر قال من نعم وكما يقتلكم مري السباع دوغمنت أه، ما نقول وصلت في فيلم الشجاع ما يجمع في فيلم جاكلي نعم نافك أب جمبار مريكو ممكن mu ne ko waaw comme ni ma leen ndogmente rek fekk asujaaw fiirul jàmbaar alxayatu lay firi jaan xaala mu ne fan xatala nam ray na zammaaratan waykat fil hmm. xarami ca xaramu ba xaala hmm. mu ne ali war na ko bari na tun aju sóor mel na ami ci gàtt gërëm gërëm koy jox mel hmm. na ami ci juru kër yi laa bëgg wax azamaaratu an naamatu mooy bànjooli ku ko rey gërëm nga koy fayee wa ismu sawtihaa turu kàddoom mooy azimaar قال من فين رمى نمسالنا ساقه رين بير اب غور فيك اب غور مسان يلبا فجدره من نرمل كما مرايكو قال من يخرج دي ген شاتن غات بدلو رامبراسيكو نعم. اب غور كاي كو غاري ني فايو واي ساقه رين من ذكر القمارا بتاخ مو غور نعم بتاخ يو ني قمارا بو غور بو ساقه رين قال من فين قتلنا مرينا ام عوف ام عوف umma aw fi dafa mel ni ab jigéen mm-hmm. baada ihraam yi gannaaw xarmaan xaala mm-hmm. mun a yeta sadaqu saraxe mm-hmm. bi xob da din ci am ngëbin min taamin ci ñam na jël dara ci ñam joxe ko fekk umma aw fi aljiraada mooy njéeréer xaala mun a ay jibu ndax dana war alal xaaji ci aji xaj ci saabul xaari bi ànd ak gaalu looco aj moom la ci yóbbaale gaal xaala mu naam waaw li soo xoxum pour muhammad leen ilal machaari bi ci naan waaye war nag fii sopp la القارب مو طالب الماء اي ساكو ندخ بليري سي غودي ندا اج كات ورنا وود كو اندي ندخ سي غودي نعم مو واو بور ندا بو نسوخلا ندخ مو ولنا مو من لنا وان ندخ نعم قارب موي كو خامني دا فاي ساكو ندخ ساكو ندخ قال مو ما تقول لا وقت في الحرام يجول حرام بعد السبت غناو سمدي قال مو نقر حل دغن في ذلك الوقت في الوقت بو سمدي جوتي دال بو نعم. سمدي باسي دال لي لك الحرام المحرم اجي حرام وسبت محل قراسي قلنا بوري و وتي بوب با وحل دغن في و دغن هيو يكون لي في من تحليل الحج مي بوك تي تي مي جوي سي و حج لو حرام يا حرام انت اجي بوري بوت في مي دغن قال من ما تقول في بيع الكوميتي سجاي jàkkeer mooy fasu wu xonq xaala mu ne xaraamun dafa xaraam ka bayin mayti comme jaay néew fekk alku maytu mooy alxamru sàngara xaala mu ne ay juus ndax daan dagan bayul xelli jaay benegar bi laxmil jamali ci yàpp gëlëm loolu dara nekku ci xaala mu ne ko laa wala déedéet wala bi laxmil jam xamali duñ ko jaayee yàpp mbote fekk alxal du bineegar ibnu maxaat la gërëm hmm. googu du am at bu dugg ci atam ñaareel nga wala du dagan nag bay u laxmi jaay yàpp bi xayawaan ci xayawaan hmm. sawaawun moo xam kaana nekk na min ci xeetam aw min xayri jinsi wala dul xeetam hmm. joxe yàpp jox la xayawaan moom daganut moo xam yàpp bi ak xayawaan bi ñoom ñaane benn lañ ñoo bokk xeet nag ak nag la wala xar xar wala bokkuñ xeet waaye nag bu dee bineegar moom dara nekkul ci xaala mu ne aya xillu ndax dana dagan bayul hadiya jaay kado mooy lu ñu la may mm-hmm. xaala mu ne laa déedéet wala bayul sabiya du caagan jaay jaam buñ jàpp mm-hmm. jaam bu jigéen buñ jàpp ca xare ba mm-hmm. fekk al hadiya bi tasdidi si sa dëgga maa yox daa mooy lu ñu hadiya leel kaabata jëm ci kaaba ka li ñu hadiyal kaaba kenn sañu koo jaay mm-hmm. wa yuqaal danañ wax fiyaa ci moom hadiyatun bi taskini daali ci sukkoon daal gi mm-hmm. wa taxfiifil yaay ak ayofal yaay ga muy hadiya mm-hmm. Hmm? wa sabiyatu nag fii firiwut jaam buñ jàpp waaye alxamru lay firi sàngara qaala mu ne maa taqul lay wax fii bayna aqiqati ci jaay karaw karaw xarak beeg yooyu xaala ne maxzuuru luñ aay la ci dëgg-dëgg fekk alxaqiqatu maa yusbaxu mooy la ñuy rendi anil mawludi ca xale bañ jur fi yowmi saabin ci bisab juróom ñaareel min wilaadati ci juddoom gàtt googu gàttuk tudd la sañuñ koo jaay xaala mu ne ay juusu ndax dana dagan bayu daa yi jaayal aji woote ji ala raa yi ci aji sàmm ji mm-hmm. ba léegi nag mooy jaayal la ko naa dem fekk kuy mu jaayal ko àllam mm-hmm. xaala mu ne ko laa déere loolu mun nekk wala ala saa yi mënul jaayal aji jël asaka ja mm-hmm. addaay mooy baqiyatul laban mooy la des sooma fi dara yi ci batt ba mm-hmm. ah soomu des ci batt kenn mënu koo jaay ndax xam nga wa saa yi nag mooy jaabi sadaqa kii jël azaka ja mm-hmm. kooku alal alal ji moomu ko ayubaahu ndax danañ jaay mm-hmm. asaqu jéegét bi tamre ci ndax mën ngaa joxe picc ñi joxe tàndarma dara nekku si waaye mu ne ko xaala mu ne ko laa déedéet wa maalikil xalqi maa ngi gën ci mukk moom mbind mi wala amri ak mbir mi yàlla mi moom aalamul xalq aalamul amr fekk a saqru mooy ak dib suuf kooku xeetu sàngara la xaala mu ne ay stari ndax dana jënd al muslimu julit salabal muslimaati rekkiti julit bu jigéen ndax boo ñëwee fekk julit bu jigéen nga jël àllam ndax sañ nga ko jaay julit mu jënd ko déedéet ndax jullit bu jigéen alalam moo ko moom mhm. kenn sañu ko jël di ko jaay mhm. xaala mu ne ko naam waaw waaw wayu rus danañ ko doon anu ci mu isa maata bu dee mhm. mën nga koo jënd sa boo dee ko doon mooy ci xoñ xoñtu garab li nga xoñtee ci garab bi nga jaay ko foofu am ay dem ba tey mooy xuusu sumaam yi mooy garab yi eh, gàncax ak sumaam dégg nga xob yi gàncaxam sumaam hmm. xuus bi mooy xob ya hmm. sumaam nag garab gu lott gu doyee mu ne hmm. loolu mën nga ko jaay mën nga koo jëndit xaala ne faal ya juus ndax dana dagan an ah. ñu jënd achafii aji ramm ja kay ramm nit ñi di xettal nit ñi ndax mën nañ koo jënd xaala mu ne maali jawaaz di ñeel ak dagana min daafin ci benn aji jëñ loolu koy dara nekkut ci fekk achaafi mooy achaatu gàtt alati ba xam ne yet bu mu ngi koy topp euh, saxluha mburtum mm-hmm. mburtu mooy doomam ji xaala ne ayu baaw ndax danañ jaay al baraada mm-hmm. ala bani asfar ci waa banu asfar mm-hmm. dégg nga mu ah xaaral mu ne yukuroo danañ ko sib ka bayin hmm. meexfar comme jaay leen mbubum koŋ hmm. al ibriq nag a asayfu saqiil jaas juñ xàcc alkasir maay ju bëri ndox hmm. jaas juñ naan la lool ba mu rafet bu banul asfar mooy waa ñu koy xeexe mu ne ay juus ndax dana dagan an yebia mu jaay rajulu góor say fi yowu lam judduloo ci noor say fi mooy sarab euh, jur gi nga xam noor la judd xaaral mu laa déret walakin waaye nag li yebbeex na jaay safiyahu alalam jëm tànn mhm. dégg nga dégg nga mhm. fekk asay al waladu alal kibar mooy doom ju am ci mage mhm. ah, loolu mënu koo jaay ndax nit mënu jaay doomam wa safiyu nag naqatu mooy gërëm xasiratu dari bu bëri soow kooku mën nga koo jaay dégg nga waaye nag safiyewu fii mooy xaritam rek fii yaa moom jaay lam jubloo waaye mën naa jaay xaritam fekk safiyu fiiru xarit mooy gërëm gu bari soow xaaral ne fa istaraanam jënd na abdan jaam hmm. fa baana mu feeñ bi ummi ci yaayam jiraaxun ay gaañ-gaañ hmm. dafa jënd jaam ndeke yaay jaam bi dafa am gaañu dafa gaañu hmm. loolu ci yoonam xaaral ne maa fi raddi de di nekk ci delloo ko min junaayin ci benn bàkkaar fekk al umu yaay muj tamoo dimaaxi mooy daje waayu yuur ga fa yuur ga daje bu gaañoo kay kooku ayib la man mhm. nga ko delloo xaala mu ne ak tasbutu ndax dana sax ashafaatu ndab li shariki ñu aji bokkaale ci mhm. saxaraa yi ci àll ndab mooy nga bokk ni suuf ak dégg nga <coughs> la jokk ci suuf mhm. su ko defee mu jaay wàllam te yëgalul la mën ngaa delloo comme ko jaay pire ba te moom lépp loolu bu dee ci àll bu ngeen bokk mën naa nekk mm-hmm. xaala Abu Zayd ne ko laa déedéet wala li shari gi du jaagan aji bokkaale mm-hmm. dégg nga ci safra yi naaga mm-hmm. naaga mooy jëlam asaxraaw al ataanu moo di mbaam asaxraaw mbaam day firi arab yi ba nga xam ne yu maasi yu maasi ju dana jaxasoog ba yaaduha weexam ba xabratan ab pënd dafa mel ni xaw a pënd wa safraaw nag mooy naaqatu gëlëm mm-hmm. ay juru kër yooyu kenn daaw ci def ndab ndax du suuf jokku ci suuf mm-hmm. xaala mun a ay xillu ndax dana dagan mm-hmm. an yox xalaa nga xalaa bu dee àll nag danaa am sa xalaa u ah ndoxam teen ndoxam àll tàngal ko dara nekku si bu hmm. abu zeynab in kaana buñ nekkee fi falaa ci àll hmm. falaa déedéet bu dee ci àll la moom mënu leen tàngal hmm. fekk yox maa mooy yum naw danañ tere wala xalaa nag mooy alkëlawu ndoxam teen ak mboob ndax mën nañ ko aaye mu ne déedéet bu dee ci àll ñëpp ko bokk suñoo ko aaye bu dee ci àll la te ñëpp ko bokk mm-hmm. <coughs> mu ne la maa taqul looy wax mm. fii kaafiri ci meddam yéeféer xaala mm-hmm. mu ne xillun aji dagan la lil muqiimi ñeen aji sax mm-hmm. wal musaafiru ak aji tukki lan ngay wax ci meddam yéeféer mu ne dagan na ñëpp lekk ko mm-hmm. kuy sax kuy tugg fekk alkaafiru mooy albaxru géej wa maytatu asamaku mooy jën attaafi gaa ji yëkkati ko foo xamaa yi ci kaw ndox ma may mm-hmm. dem géej si moom dagan na même bu dul jën mu ne ay jus ndax dana dagan an ñu daxaa ñu tabaske bil xuri ci ku jël bët jël bët yi jël ndax mën nañ ko tabaske xaala mu ne foofu moom ajdaru moo gën a yeeyoo bil xabuuri ci nangu loolu sax moom la yàlla gën a nangu fekk alxawlu jëm wa xaayilun mooy koo xam ni euh, euh, dégg nga mm-hmm. mooy koo xam ne ne ambut mm-hmm. mm-hmm. gàtt bu ambut moo gën bu ambu xaala mu ne faalilu daxaa ndax danañu tabaskee bi taaliq ci kuñ fase jigéen juñ fase xaala ne naam waaw wa yuqra def nañ ko bernda danañ berndale min haa ci moom a taariq aji reñaan ku ñëw guddiit bu ñëwee danañ ko jox ci jigéen jooju moom berndal ko ci fa nga loolu mos nga ko dégg ak nag mooy annaqatu gërëm hmm. tur solo goo xam ne danañ ko xebal tara muy sàmmay ci char fu ko neex xaaral mu ne fen daxaa tabaski na xam hmm. na zuhuril xasaala hmm. njëkk feeñ ak kéwal ga dafa tabaski te gi feeñagut ah loolu da kéwal lu ci yoonam ci tabaski xaaral mu ne chaatu laxmin gàtt ak yàpp rek la بلا محالة تدور بين جم فك الغزالة مو أشمس جنت وأنا على شيء قدم شافي نعم. بلون قدم مالك بو فجر قصي جور رك بو تبسك أم نتبسك لين كسب الغزالة مو أشمس آه، جنت لين آه، قال بعضهم ñeñ ñi wax nañu yu xol dañu wax talaat fenk na al ghazalat ولا يقال غربت صنع صنع بينكو وخ تنا رك نعم. وددها سفان وغزال مو الجونة الجونة جنت لي في رواية مومت صنع لن يوخ يسمى لن تدي بها تموم عند مغيبا سجمونا سوق جنت با لأننا نخمم تصود دي نيول عند تغيب هنا تغيب جونة بميسو كما قال الشاعر تبادر جكرا انتناك الجونة جنت بأن تغيبا بموسو mu ngi njëkk daan teg soog jant bi hmm. dégg nga dégg nga dama ñaa ko mun di xaala mu ne ay yaxilu ndax dagan hmm. ataka subu fàggu bi tarki hmm. ci fëgg. ci dóor. naam moo xam moo xam looy mën a dóor rek ñu fay la. ak nu maa doon. xaaral mu ne foofu moom kal ximaari comme carte rek bilaa farqin ci lu benn taqale. fekk a tarku a darbu bil xasaa mooy dóor ay xeer. di am loo ci gisaani comme comme pettaw daal. boobu moom min afaalil kahanam mu bokk ci jëfu. gisaani kat yi. pettaw la daganul. xaaral mu ne ay sallim ndax dana nuyu alqaayimu aji taxawal alqaayidi ci toog. Mm-hmm. boo gaawantoo ko dara nekkul ci. Mm-hmm. mu ne maxduurun luñ xaraamal la. Mm-hmm. fi ma beneen abaay di si diggante ñu sore ñi. fekk alqaayidu aji toog. allati mooy ki nga xam ne toog naa ne xaydi ci mbërëg. awan yi azwaaji wala jëkkër ko amul jëkkër wala amul mbërëg. toog jékki di nuyu wanteeg jàmbur mu ne daganul. waaw taw boobu wax ne. jànq bu jigéen boo xam ne mën nga ci am fitna romb ko ne ko salaamaaleykum sa daganul ndax dañoo bëgg salaamaaleykum maaleykum salaam sax bu leen ko seq ndax mën naa andi fitna rawatina ci a lu xaram xaala mu ne yanaamu ayanaamu ndax dana nelaw ala aqilu aji am xel mm-hmm. taxta raqi ci ron dof mm-hmm. ndax ko am xel mën naa dem ci ab dof ron dof mu fay nelaw loolu kay kenn du ko def mhm. xaala mu ne ahbib soppul bii ci moom fil baqi ci baqi mu ne ah loolu de bu dee baqi la lu baax la mhm. fekk raqiyan fii mooy asamaaw asamaan mhm. baqiyan nelaw gi nag xëy na deere ci nam waa waa waa an an naa namm na bil baqi ci baqi baqiwul madina waroon <coughs> baqi daal nga nelaw fa baax na ayum naw ndax dañoo tere ndax danañ tere azim azim yu ko ju kóllëre min xatli ajuusi ci rey màggat mm-hmm. màggat moom julli sax mënu ko rey waxuma laa kéefir boo xam ne dañoo seq ko dara xaala mm-hmm. mu ne mu aaratoo jëkk jékki di gaar lu wante ak moom mm-hmm. fil ci màggat laa tajuusu du dagan nee na màggat moom mën ngeen ko bàyyi mu rey ko fekk al ajuusu màggat alxamru mooy sàngara fii waxat luha masjuha mooy jaxase ko jaxase sàngara ak leneen loolu kay xéeféer mën na ko def ataa sax boo nit bu takkee jabar xéeféer sañu ko aay dem seen église bi li nga seen diina may yëpp da koy bàyyi parce que moo ko fekk ci loolu takk mm-hmm. loolu war a ñu nga takk xaala <coughs> mu ne ay juus ndax daa dagan aneen taqale mu toxalu arajulu góor anee ci dundalu baayam loo xam ne baayam a ko dundal ba ko uh-huh. hmm? ko hmm, tere fii xaala mu ne mm-hmm. maa juwisa daganaluñ ko mm-hmm. li xaamilin mhm. ñeel aji fay wala nabiin du caagan aji yëkkatiku lu ngi sa bàyyi bàyyi bu la neexee nga ba ko mhm. bu la neexee nga nekk ca yaa xool waaye mu ne daganut fekk al imaaratu mooy al xabiratu kuréel génn sa kuréel ga moom mhm. dem askanu ci beneen kuréel kooku xaraam la ndax ut moom laa lay wax fi taxawudi mu ne ko xaala mu ne ko maa lay wax fi taxawudi ci nekk yahud kaarisa la musiba la nekk yahud xaaral mu ne ko xóolal miftaaxu tazahudi mooy caabi dëddu àdduna fekk ak taxawudu mooy ak tawbatu tuub moom yow jugee na ci moom qawlu taala inna hudnaa tuub nañ ilayka jëm ci yow. mu ne ko maa taqul xaaral mu ne ko maa taqul lay wax fi sabril bariya ci muñ natt. ah xanaa baax rek waaye xaaral mu ne ko. azim màggalal bii ci moom min xatiyatin ci njumte Mm-hmm. mu ne ko waaye ndaw njuumte mm-hmm. muñ natt mu ne ko ndaw njuumte mm-hmm. fekk <coughs> asabru alxabsu muy tëj wal baliyatu nag an naaqatu mooy gërëm tuxbasu danañ ko téye inda xabru saaxibiha fa xabru boromam falaa tusqaa duñ ko naan dara wala toxal wala toxalafu duñ ko yafal ilaa an tamuuta ba dee wa kaana nekkoon al jaahilatu ñu réer ñi tafamu di njort na saaxiba na borom gërëm ga mm-hmm. yox seeru danañ ko pangaale yaa ci gërëm ga mm-hmm. bu fa duñ ko nàndal duñ ko yafal mm-hmm. gërëm gi dee ndax ñoo jàpp ne moom buy dekk ci gërëm gi dañ koy <laughs> pange kooku dafa xaram xaaral mu ne ko ay xelu ndax dana dagan dar bus safiir yi dóor ambassade mooy mhm. kuy defar diggante nit ñi mhm. nga ñëw dóor ko ndax dagan na xaala mu ne na am waaw ak songu mhm. al mustashir ci aji diisoo mooy nit bu ñëwee di la laaj xalaat sax mën nga koo songu xam nga loolu loolu daganul fekk asafiru ma tasaaqata mooy rot na min waraqi shajari ci xobi garab yi nga koo dóor dëbb ko ba mu nga def ci liñ ci bëgg def Mm-hmm. wala mustachir muy aljamalu gërëm asaminu muy aju njool mm-hmm. fekk xam lu foofu sëf la ci nam yenu foofu moom ay ba tey aljamalu mooy gërëm alladi mi nga xam ne yaarifu dana xàmme ci bu ëmbut mm-hmm. loolu mooy mustachir gërëm googu mën nga koo sëf xaala mu ne ayu aziru ndax dana yar mm. arajulu góor abaawu baayam ndax nit baayam dana def dara mu dem di ko dóor di ko yar قال من يفعل دنا يفلل البر كباخ ولا يباوت لكبن فيك التعزير التعظيم وين ما قال نعم. والنصرة أنجمل والتوخير أقبك قال من ما تقول له وفي من أفقر تك نأكلون أخاهم بكم فخبم بكم نأك قال من حبذا أكباخ ما توخاه لم جبله فك أفقره أعاره ما أبن لكم ناقة قرم يركب مور فقارها جناوكا jox ko gëlëm muy war gannaaw ga loolu dara nekku ci ak a baax xaaral mu ne fayn ara ndem rafetloona wala doo doom fexe ba doomam yaa mu yére buñ sol xaaral mu ne yaa xus na ak rafet ma tama doxu lam jublu waaw loolu kay dafa tuut waaye fekk ara mooy en temps jox jox na ko samrata naxlatin du tàndarma aman ab at mu ne ko at mi daal du tàndarma mi yaa moom loolu dara nekku ci xaaral mu ne fayn asla lem jaaral na Mm. ndem lakk na moom loo ko jaamam annaara safara mm. fekk ak jaamam mu lakk ko safara mm. xaaral mu ne laa isma déet ak bàkkaar aara yi di ko war wala aara te déet gàcce fekk al moom loo ko alaa jinu mooy mooñ allazi bi nga xam ne xat ujida rafetal nañ mooñ ba nga lakk ko loolu dara nekku si <coughs> ajanowu mooñ na ko ataa xawee ba mu dëgër xam nga mooñ yi boo paree da nga koy def ci indee taal safara ba mu nekk ci rek yooyu mm-hmm. loolu dara nekkul ci hmm. xaala mu ne ay juus ndax dana dagan leen maraati jigéen an tasri mu dog hmm. baalaxaa jëkkëram hmm. ndax jigéen mën naa ba jëkkëram mu ne ko xaala mu ne maa xasara aayawul kenn fexe def ko mu ne ko loolu kay kenn aayawoo ko jigéen ju neex nga dog sa jëkkër fekk albaalu mooy a naxlu tàndarma alladi bi nga xam ne bu dana naan bi uruqi ca renam ya mm-hmm. mine addi suuf tàndarma joo xam ni ren yi yi nekk suuf ci lay naanee mm-hmm. dégg nga kooku jigéen ji ko moomee mën na koo dog mën na koo dagg maanaam xaala mm-hmm. mu ne faaltu addubu ndax dana ñeex almaratu jigéen al xajari ci kerse ndax jigéen bu amee kerse danañ ko dóor di ko yar naan ko bàyyil sa kerse gi déedéet ndax kerse si jigéen la bokk xaala ne ko ajal waaw fekk al nag suu ixtimaalil xinaa mooy ñàkk mën a koom koo xam ne boo amalee fuuy bew kooku xajal la kooku xajalun la maanaam at nut alal wa minu ci la bokk xawlu sallallahu alayhi wa sallam bu mu wax li nisaa yi ñeen jigéen ñi ne inna ku ne yéen jigéen bi hmm. isa joxtun na bu ngeen xiifee hmm. daqiatun na ngeen toroxlu وإذا شبعتن بوين سورينك خجلتن نغير فوي <laughs> جيهن جبرين للمم وين كيف رد أي ترانو <laughs> مك هاي بوين فوي سوري فوي <laughs> قال من ما تقول في من تيجي خمني نحت يتنا أصلت أخي قرب بكم sa garabu mbokk nga dem yett ci dara ah rawatina bu la ci mayee ndigal dara nekkul si xaaral ne asina bàkkaar na wala asina direct digal na loo ñëw ko fii ci moom mu ne ko bu ko si jëwee waqadaha mu jam fi ardi ci deram kooku bu la ci dir mayee ko ne ay yaxjuru ndax dana xiir alxaakimu attikat ala saahibi sawri ci boroom yëkk ba ah xam yëkk rek noo ko xiire xiir ko mooy nga di toppatoo mbir rek moom sañu def dara mhm. xaaral mu ne naam waaw lii am na ngir mu wóolu xaayilatal mhm. jawri mhm. yongaanab jéng maanaam xay wi jéng fekk asawru mooy al dof ku dof kay attakat bi dana ko xiir mhm. téyel ko alalam téyel ko mbiram mhm. balaa muy jàng def lu mu war a def xaala mu ne hmm. ndax ñaal na mhm. mu dóor ci loxol jirim ndax mën naa fekk loxol jirim mu dóor ci déedéet xaala mu ne ko naam waaw ilaa yastaqima ba mu jub rek hmm. fekk yu xaal lañu wax dara ba dóor na alaa yeddi ci loxoom isa xajara bu xiiree ci moom mooy teel ko mbiram daal jirim dañ koy teel mbiram ba mu jub hmm. xaala mu ne faal faal ya mu jàpp loo ko rabadan ab gët rabat mooy tool rek hmm. la nekk ci gannaaw dëkk bu muutal ko fa dara xaala mu laa dir la wala kaan di la nekk na ridan di ngërmaande loo ñëw ko di baax na ci moom moom du wutal gi bi tool yooyu fekk ah. arabat mooy azawjatu soxna loolu nag ci ngirëm Shaafi la mën a wutal jërim soxna xaaral mu ne fa mataaye kañ lay jaay bari na saf yi ku dese ku dese kay moom mu kii kii mënoo jaay mhm. gisee bi loo di ko ne loolu baax na ci ku dese ki na ko mhm. jaay yaram fekk albadanu mooy ad dirawul qasira Eh, mbuum koŋ bu gàtt xaala mu ne faal yajuus ndax dana dagan an yabtaa mu jënd loo ñeel ko xaccan duus mhm. duus ab kese loo koy jëndee loolu yàq la xaala mu ne naam waaw isaaram yokkut bu nekkut mu xaccan di luñ muur fekk alxaccu an naxlu mooy tàndarma al muj tamoo bu dajaloo al muj tamoo bi aji dajaloo kooku bu bu dee xool nga ko mën nga ko ko jëndal xaala mu ne ay ndax dana dagan an yekkut mu nekk alxaakimu attikat mhm. zaaliman di aji tooñ ndax àttekat mën naa nekk tooñkat hmm. mu ne ko xaal mu ne ko naam waaw isa kaana bu nekkee aliman day borom xam-xam boobu bu dee borom xam-xam la kay ku ko neex tooñ fekk <laughs> fekk azalimu allazi mooy ki nga xam ne yashrabu dana naan allah banu soow xabla an yaru ba njëkk muy way wa yaxruju muy génn zabadu dax ka hmm. dax ka mooy loolu mel ni diw ci kaw soow bi bu dee xam nga ne lii baax na mën nga ko naan dara lor dara nekku si xaaral mu ne ay staqdaa ndax danañ attiroo man ngaa xam lay sa nekkul lay sa nekkul loo di ko ñeel basiratun xel ko amul xel ndax danañ ko attiroo xaaral mu ne naam waaw isa xasanat bu rafetee minu ci moom asiratu jikko fekk al basiratu mooy attir su pakk ko amul pakk kay mën naa attire xaaral mu ne fen tempsra nem rafle raflewu na mel àqali ci xel ko amul xel nag kii kee dafa amul gis-gis basira mooy ko amul gis-gis kii amul xel ndax mën nañ ko attiroo kawe mone dakiro lolu won wawi fadri moy adresse ngayel te ko ala aqlu darbun xetla menen wasi ci jam atte kat bo xamne du sol yere yu jam yere yere fere kokul kokul dafa wane ku dudu aduna wa atte kat bu dudu aduna ci legena bax xala mune fen kana bu nekké lo ñal ko zahu jabarin rek ay ay mbeuru atte kat rek dafa yore rek aji mbeuru rek lu dal xaaral mooy laa inkaar bi teg weddi xaal yi nekk ci loolu walaay kibaare te jërul réyal hmm. loolu jërul réyal dara nekku si azahu al busru mooy tàndarma al mutalawinu bu am couleur ah. wal jabaaru nag a naxlu lazi mooy tàndarma ba xam ne faatal yedda faat na hmm. boo tàllalee sa loxo doo ko jot ndax guddaayam hmm, ba didduwoo safaan bi mooy al qaidu mooy tàndarma yoo xam ne dafa gàtt lool loxo yi sax ko sut fa su ko defee atekat boo am tàndarma yooyu kay dara nekku si xaaral mu ne ay juus ndax dana dagan Mm-hmm. a nekkoon mu nekk shaahidu aji seede ji mm-hmm. muri bandi aji sikk koo xam ne dafay def ay lënt daal mm-hmm. xaala mu ne ko na am waaw isa kaana bu nekkee ari bandi ko am xel seedekat bu amee xel kay mën naa fekk al mooy ki nga xam ne yag suu dana bëri àndoo fu moom allabnu raay bu soow mu way xaala mu ne fen baana bu feeñee andoona moom laata def na jëfu góor jigéen attekat bu defee jëfu góor jigéen nag xaala mu ne foofu moom kamaalaw xaata comme bu ñëwee ndax dara nekku si fekk laata alxawda isa tëyyanahu mooy bu ko defaree mbalka defal defal euh, mbalka xam nga mbalka mooy defal na euh, kii bi mbalka tabax na ci weti daal wetu mbalka bi mu tabax ci dara ne ko ci xaaral mu ne fay na onsira ndem yër nañu ala andoo ne moom xarbara hmm. tame na seedekat bu tamee tame lay لا يشيره ولا يدري نعوسي قالوا من تردد دنيا دلوا شهادة وسيرة ملا تقبل دنيك نعم فكر بلا أي قتل رأينا ومن قول راجس ترى الملوك حوله مغربلا بوي يقول يب رأينا لا قالوا من فن ودحنا ملارنا أنو نمهم ما إنه أجي نار لا ما يوخد دقة moom àttekat bi bu dee waxut dëgg nag xaaral mu ne foofu moom wasfun melal la melo la zainun bi aji taaral la ko ñeel ko mu ne ah loolu kay da koy gën a rafetal rek fen hmm. nu muy rafetale fekk hmm. mooy ki nga xam ne ni yaulu dégg nga hmm. dafay dundal nit ñi wayak fii muy fekk almunata coonaay dund mu ngi jugee ci maana min maana yamuunu laa min maana yeminu maana yemunu mooy dundal na ko waaye maana yeminu nag mooy nar na hmm. ma xaala mu ko maa yajibu loolu moo war hmm. ala abidil xaqi ci aji jaamu yàlla xaala hmm. mu ne yoo xalafu danañ ko gëñloo bi ilaayil xalqi ci yàllaay mi ndefi fekk al abidu haahuna mooy al jaahilu weddi wala xaq mooy addaynu bor kuy weddi bor dañ koy gëñloo xaaral mu ne maa taxul loo fi man faqaa ci nga fuq na. Hmm. ay na bulbul bëtëb bulbul piccam bulbul nga fuq bët nga fuq nga bët ba. Hmm. boo ko rayoo ni dara nekku si mu ne looy wax ci ku fuq bëtëb bulbul ah mi dañ da ji tey. Hmm. xaaral mu ne tuf xaw danañ fuq ay na bëtam muy jénn wax mu ne léegi boo fuqee bëtëb picc. nañ fuq sa bët rek fekk al bulbul arajulul xafiif mooy góor gu oyof nit moom lu mu doyadi doyadi. boo fuqee bëtam hmm. ñu fuq sa bët naam wax ji hmm. xaala mu ne hmm. fen jaraxa jam na xataata imraatin përëmtaanu jigéen fa maatat jigéen fa maatat përëmtaan ba dee wala jigéen ji dee rek waaye fii dafay mel ni përëmtaan bu moo dee perentaan picc la jigéen a ko mm. moom waaye ji ko mu dee mm. xaala ne ko nafsu bakkan bi nafsi ci bakkan ida faatal bu dee mu ne nañu rey comme nu mu rey bi fekk alxataatu maa bay nekk diggante ñaari pooj yi mm-hmm. pooj jigéen foofu la jëm mm-hmm. ba mu jëmee diggante ñaari pooj mm-hmm. jigéen ji daal di dee ah dañ koy rey moom it ne fen alxat nem sànn ji biir ji ñax Hmm. min bii ngir dóoram hmm. dafa fekk jigéen dóor ko jigéen ji sànni ñax ba mu yoroon hmm. jigéen ji ëmb ji alhamdulilah aji ëmb ji lay firi jigéen bi dafa ëmb mu dóor ko jigéen ji sànni ñax ba yoroon xam nga sànni ñax gi moom dara waru ci xanaa dóor ga ñu yer la ci xaaral mu ne liy na kafaara bi leen sàqi ci góoreel an bii ci bakkaaram mu dafay góoreel jaam kafaara ko bakkaaram fekk alxasiis mooy aljëninu jaam aljëninu doom maanaam mbéy mun al mulqaa buñ sànni mayitan ci fekk mu dee mayitan mu aji dee dafa dóor jigéen ji jigéen ji avorté biir ba yàqu ak ci ngërëm maale na moom dafay joxe fukkeelu dee yaay rek mm. moom na ngeen day goreel jàmm maa na shaaf yi lay mu ne maa ngi jibalan moo war xalal muxtafi ci aji nëbbatu fi charin ci yoon mm. fekk aw yoon mu làqutu ci lu ko war mu dagg loxo ba léegi xaamate radi ngir saxal ak jaaj ji maanaam xupp al muxtafi na mooy na bâchul xubuur kay sulli bàmmee yi xaaral mu ne fu maa yus naw lan def bi man saraka si ko sàcc asaawira daari jaanu kër ga fekk jaan yi nekk si mu sàcc ko xanaa ñu sant ko te gërëm ko ndax noppal na nit ñi rek waaye xaaral mu ne yokk taw danañ ko dagg insaawee bu buñ tollooyee rubon dinaarin kaaru dinaar fekk al asaawit al mooy jumtukaay yi ñuy jëfandikoo kal ijaana comme ndab yi ñuy fóote wal xidru ak cin wal jëf na ak baagaan ñuy def lekk gi yooyu bu ma tey kaaru dinaar dañ koy dagg xaala mu ne fen sarakanam sàcc na samirin aji seer min zahabin ci wurus xaala mu ne laa xataa duñ dagg loxo ba kamaa la waxasa ba comme bu këfee alalu jàmb rek xam nga këf alal duñ si dagg parce que du sàcc mooy waaye wurus bu seer boo ko sàccee duñ la daggal duñ dagg sa loxo fekk ak samin muy ak fumun سمون متوب كار مساتي سمون تيورس كان دوكا كما يقال لكم من يوخ في النصف تيجان والنصيف سدس سديس نعم قال من فين بان نملرنا على المرأة تيجان السرقة ساتي قال من لا حرج بكر عليها ديكور ولا فرق ديتك رجل Mm-hmm. am na jigéen ju amul bàkkaar amul lu muy ragal mm-hmm. fekk as saraq al xariirul abyad mooy sooy weex mm-hmm. aywa jigéen mën na koo sol xaala mu ne ay naqilu ndax dana fasu ak nikaaw nikaawun sëy lam yashadu teewul ko alxawaar yi piccam xawaar yi sëy boo xam ne picc yi see seedewuñ ko baax na picc lu yorom bi sëy xaala laa déedéet wala xaari xi maa ngi ci aj bind al baari ji aji yett mbiri fekk alxawaar yi mooy ashuhud seede yi li anoom ndax ñoom yaquruuna dañuy topp yaquruuna al ashyaa mbir yi mm-hmm. ay yatatabaunaha dañ koy topp xaala mu ne maa taqul looy wax fi aruusin si seet mm-hmm. baatat fanaan na bi leelati xurratin ci guddi gor mm-hmm. seet bu fanaan ci guddi guddi gor maanaam fanaan ni gor di fanaanee su maruda topp ñu delloo ko fi xaafiratiha ci yoonam bi soxratin ci njël xaafira mooy yoonam wu njëkk fanaan na guddi góor ba njël jotee ñu daal di ko delloowaat ci yoonu mu jaare woon xaaral mu war laxaa ñeen ko nis fa sadaq génn wàllu can wala talzuma du ko war xeddatun edda xeddatu talaaq eddaay fekk lam ci ne moom mooy seet boo xam ne jëkkëram jotee wut moom daara fajar jot mu fase ko kooku kuñ fase te jotee guñ la génn wàllu can lañ koy jox te du edda Mm-hmm. yuqaal dinañu wax baatat fanaan al awsu seet bi bi laylati xuratin ci guddi gor mm-hmm. isam tanaat bu bañale ala zawjaa ci jëkkëram fay naf taddahaa ne bëtt na ko maanaam bu ndaw ga dañee mm-hmm. xëy dañu ne baatat fanaan bi laylati sheyba baatat bi laylati sheyba mooy jote nañ ak moom waraddu fil xaafirati delloo ci yoonam bu njëkk ba xaafira mooy awlu yoon moom njëkkoon jaar mm. bi maanaam rujon mooy maanaam dellu fi tariq awal ci yoon mu njëkk mm. wa kan naa daakantal na bii ci moom an talaaqa ci ko mm. war a dee ak delloo ko ila ahliya ci ñooñam lii mooy téeméeri fatwa fa qaala moo loo ñëw ko asaayilu aji laaj ji nekk lillaahi kimtaan ñeel na yàlla daru ka sab soow mm-hmm. min baxrin nga di géej goo xam ne laa yu xat du ko ŋacci mm-hmm. almaatihu aji wëgg mm-hmm. wa xibrin ngay fóore boo xam ne mm-hmm. laa yabluqu du jot madxuhu tagg ko mm-hmm. almaatihu aji tagg ko dafay waa ji tagg ko su ma mu sëngeem maanaam mu sëgg itraaqal xay yi comme sëngeem oo am kers wa aram mu noppi irmaamal xay yi comme aji lott ku mënul wax fa qaala mu wax loo ñeen ko abu zeydin ihin dollil yaa fatan yow waxambaane fay laa mata ba kañ way laa mata ba kañ maanaam noppi ba kañ fa qaala lahu ndaw si na ko innoo naka lam xale bi na ko innoo naka lam mbaam lam yëpp xadisut kinaanati sama tunkaar mooy sama defukaay fet mir maatun lu ñuy sànni wala baada israaqi subhika Mm. nekkul ci gannaaw fenk ak sa suba mm. mu maaraatun benn werante li nga wane nii kay amatul lu ñu werante ndax lépp leer na mm. fa billaahi maa lay laaj ci yàlla ayib ni ardin ban doomi suuf nga ante yow foo juddoo fa maa axsana ana lu gën a rafet maa abante la nga feeñal li nga leeral lu ko gën a rafet fa anshada musadd bi lisaanin ci làmmañ zaliqin bu ñaw mm-hmm. wa sawtin ak kàddu sax zaliqin bu tat mm-hmm. ne ana man muslatun comme léeb laa fi la alami ci àddina bi mm-hmm. wa qiblatun maay jublukaay li ahli ilmi ñeel borom xam-xam yi damaa tasaaroo ma xam ma mel ni léeb borom xam-xam yëpp di ma jublu si xëy na waaye na man kulle yomin bis bayna taarisin maa ngi si diggante tërtërloo wa reex la laxas saa su nekk rek maa ngi tukki di wàcc ci mujjë guddi yi mm-hmm. wal garibu daari aji tumuranke kër mm-hmm. daw xalla dina wàcc na bi tuubaa ci aljana mm-hmm. lam tatib du neex law ñeel ko du teey ñeel ko maanaam du neex ndax dafa tumuranke suma xaal toog moo allahuma yóbbu yàlla kama jaxaltanaa comme ni ñu defee mi man moom ñu bokk ci ñi nga xam ne huddi yee gindi nañ leen wayax di ñuy jubal keneen fajaxalhum yàlla nga leen def ñoom mi man ñu bokk ci ñi nga xam ne yaxtadi danañ gindeeku wa yox di tey joxe addiya mu ne yàlla comme ni nga ma jubalee may jubal nit ñi mm. gaa yi déglu yàlla nga leen gindi mm. daf leen ñoom ñu ñu di ma jox addiya fa mu màng ilay jëm si alxaw ma nit ñi mm. zawdan ay fekk mooy lu commencé ñetti gëlëm ba juróom-ñeent maa xëy na tin ànd ak ay ay jébeer wasaalu ñu laaj ko an yazuru mu ziyaare leen al faynata ab diir ba al faynata gannaaw ab diir fana haɗa mo ɓuur yumman ni yimdiren beɓetlo alaamata dello mm. o usaji muy mangue manam muy ommat mm. alamata jambo zawda ak fegba mm. ndax maynañ ko ab jam moy xayna qala wana alharisubnu hammam fa taratuhu ma ganan ko manam ma taxaw ci yonam wa qultu loo ma ne ko ah di sama géej bi ka sew. shafihan mbir mi nga aji dese. fa mata sirta kan nga mujj faqihan di aji dégg fiq. adab de xamee naa la ko moom waaye fiq xaw ma la si woon dara kañ nga nekk faqih. fa zalla mu mujj hune atan ab diir ya mu yendu hune atan ab diir. ya juuru di wandeelu. muy wandeelu nag ab diir. su ma sha mu sadd mu sos way yaqul di wax ne labistu sol naa li kulli zamaani ñeel bépp jamono. labu san ab yére mm-hmm. wala bastu jaxasoo naag mm-hmm. sarfay ñaari soppandiku waaye mi mm-hmm. nooma xewal wa buusaak ak wanco mu ne àdduna neexam naqadem yëpp jaxasoo naag moom xam naa ko waaye jamono du ñëw rek yére bu mu laaj sol waa surtout àndoo naag pour képp kaa ji toog bi maa yu laa imu cëra dëppoog moom li aruqa ngir ma xéem aljalisa aji toogaale ak man mm-hmm. ku toog ak man rek lam soxla laa koy jox mm-hmm. ngir mu xéem ma mm-hmm. fandaruwaati fa ñooy nettali waxtaan yi udiiru danaa wëndil alkalaama wax ja wa bayna suqaati si diggante way naan naan ya wala boog way nandal ya udiiru danaa wëndil alkuusa kaas ya bu dee nandalkat yi ñoo fa nekk ñëpp man la ñu bàyyi may wëndil kaas yi di nandal nit ñi bu dee waxkat yi man may wax wa tawran léegi-léegi بوعظيس سمواري أسير دناي الدموع رنقنيا وطورا لغلغي باللهويس سمكفوه أسر دنا كونتان لو النفوس بكني لغلغ مواري بغن جوي لغلغ مفو بنيب كونتان واقري دنا برنل المسامع نوبي إما نتخطو سايوم تدي لملن برنل بيانا أغلال غو خمنا يقول دنا همت الحرون أجي خوخ Mm-hmm. ashamuusa kaa ji bañ mm-hmm. ñaari baat yi benn benn la mooy fasul maamu rek mm-hmm. ki nga xam ne kenn mënu ko na xambar mu maamu man mm, su ma leer lay rek mu daal di nangu maanaam koo xam ne mosul nangu daal wayn seetu bu ma neexee arafa boril na boril na ka fii sama tënk al yaraa xalima ya fasaaqata mu rotal duran wurusu dur yu xallaa dañ ko takkal ak turuusa kayit ya wala téere ya wa kam mushkilaatin bëri na yu lënt mhm. akay na niroo na yoog ak sohaa bi diwu sohaa mhm. xafaan ci nëbbu mhm. fa seet nañu mujj bi kash fii ci sama wuññ chumu san mel ni jant bëri na yu lënt woon ba ma ko leerlee mu mel ni jant wa kam mulaxin bëri na yu xoromu lii ñeel ma xarab na not nañ alonquula xel yi wa asar na desal nañ في كل قلب تبيب قل رسيسا أكدنت دنت دينا نعم أنا مدسل من فتشف الجو غيرك وعذراء برنا كيك ويجانقبو قمني مسلم كيك قصيدة لك نمو waxtu tudd naa bi haa ci fan sanaa mu dellu aleyaa ci moom a sanaawu tagg ga taliqan di aji booy xabisan di aji tëju fa moom naa dafa xasida kenn taaltul lenn lu mooy tagg ko rek wala am na ni man min zamani sama jamono ji su si su jagleel bi kay diñ ci pexe wala kay def firawna moo gën a garaaw pexem firawna Moussa Moussa firaaw na pexe moom tëralul Moussa mm-hmm. pexe mu ma jamono tëralul moo ko gën a garaaw maanaam moom toujours dafay ñàkk mm-hmm. saxiir mu ngi taal mm-hmm. lii ñeel ma kulle yamin bépp bis waxan ab geer ataa danaa dëgg min lazaha ci safaram sa wati san ab furna wati san ak furna dégg nga wati firi xeer bu tàng lool maanaam mu ne jamono mu koy taalal bis mu nekk ab guerre mm, muy mu di ko lakk rek waaye turqu ni dana ma fëgg mhm. bil xutuu bi ci ay mbëmmi jamono mhm. mu ay musiba mhm. allati yi nga xam ne yusib na danañ seewal alquwa kattan ya way shib na danañ béjjaawal ar ruusa bopp ya ما عندي جفا جفا يبجارو ويدني لين جاي إلي يمسمن البعيد أجي صوري البغير كذا كان بني ويوعد دنا صوري لان يمسمن القريب أجي جاي الأنيس كأجي ويتلس دما جاي لكم بني دما صوري لني مبغى ولا خصاصة أخلاقه بدل منصوف جكم لما كان دونك حديث مچر خصيصا دا جسوف منو چمو bu dul woon jamono dafa suufe konoon sama cër du suufe fa qultu lahu ma ne ko xafit wàññil alaxsaana njàqare yi walaa tulum bul yedd a zamaana jamono washkur santal li ma naqalaka ñeel kara toxal an mazhabi iblisa ci yoonu iblis ila mazhabi ibni idris jëm ci yoonu ibni idris moo di shafi fa qaala mu ne da daa bàyyil alxitaara caaxaan ولا تهتك بالقوة على سار سطري كل كل باي عنا ما ينعنى نكون شيون إبليس باي ون هاد بور البناش نيم لنادري بفرن يدخ لا مسجد يسرب جم سجاك يسرب فحسا أمانة أن رحدا نرخص بالمزار في زيارة درنا الأوزاري تلي مبكارة وقلت من أقول حياة أكسوري أن أسير ما يدخ عندك يو أوفقها بدم دق أتفسير فيلم تخير هم غفيرونك fa qaala mu ne tallaahi maa ngi gën ci yàlla laqad aw jëbta war waral nga zima man ay kóllëre dégg nga bu ko defee aw jëbta wa tarabta sàkk nga is tarabta ba nga sàkkoo amaman lu jege fa xaaka jàppal maa nga xam ne yashfi dana saafara an nafsa bakkan wayan fii muy dàq al nafs mu ne falma aw daxa ba mu leeralee mu amma lañ muuroon wa kashafa mu wuññu an ci man al xumma shadad naa ci lañ takk al akwaara bant teg ya muy rek wa surtout ma dox wa saara mu dox wala mu asal dañu min musaamarati ngir ci ngoom laa nag moom muy waxtaan ak moom ci guddi Mm-hmm. muddata musaayarati diir ak ba may doxanteeg moom mm-hmm. fam fii ma ansaani maanaam dañu ma ci ngomlanteeg moom fii ma ci li nga xam ne mm-hmm. ansaani fàttaloo na ma ma mashaqati caf ngaay coona waditu ma mbébét maa waan ak moom boo da suqati sori yoon maanaam mu doon mbébét yoon wi gën a sori sax naa buñ tàqaliko xataa daa daxal naa bañ duggee waaye boo xataa isa daxal naa ba bañ dugg mm-hmm. madinata rasul dëkk ak yonent bi wa mm-hmm. fuus naa ñu texe mee ziyaarati si bi suuri ci am bébét mm-hmm. bañ mee ba euh, ziyaare yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am liñ bëggoon ci ziyaare ko daal am nañ ko ash ama ci la jaar côté saam saam wa agraqtu wa agraqtu ma jaar iraq wa garraba mu jaar sow sharaqtu ma jaar xarfu majaar mm-hmm. penku lay bëgg wax mm-hmm. in uridu lislam astantu ma tawfiqi illa billah ali tawakkaltu ilayhi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu